révision constitutionnelle boo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex dàkk ñëpp jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment euh, référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko. ne de tout façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci la amaluñu njëriñ tout cas mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séentu fépp ba mu des si mbir moomu de loolu dama bëgg ñu wax mu leer te mu mu yem fi. mandat boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag si njëkk de waaye par force doo nekk doo doo doo nekk candidat ñu teg ko ci seen bëgg-bëgg mais au nom de te ñu koy wax ñoo campagnoon ne référendum bi bu wuy jàllee président dina def deux mandats. mandat bi nga xam ne nii wax nga si nga ne mandat boobu noonu Sénégalais yi dañ la war a ñaan mais président je désolé mais Sénégalais yi waruñu la ñaan Sénégalais yow yaa leen war a ñaan mais ñoom waruñu la ñaan parce que vous êtes délégataire des pouvoirs du peuple mandat bi nga yor du dara lu dul une délégation du peuple xanaa kay ki la délégué bu ko neexee sax mu ne reprendre lim la délégué am déet mais bu fekkee ne tey da nga ne mandat bi sénégalais yi dañ la ko war a ñaan déedéet foofu moom d'accorduma fa ak yow parce que mandat bi waral tey nga toog ci boppu Sénégal di ko jiite. c'est à la suite d'un long processus démocratique et institutionnel am na sacrifice yu bëree bëri bëri bëri yu sénégalais yi def ñu ñàkk seen bakkan ñu ñàkk seen alal ñu ñàkk seen dignité sacrifié wu ba teg la fa parce que am na lu ñu naqari woon am lu ñu bëggoon ñu teg la fa waaye tey jii waroo ñëw teg gàcce mandat boobu noonu monsieur le président ñun duñu la ko ñaan parce que mandat boobu suñu mandat la